Fanta Seydi famille sénégalaise <laughs> macha allah sama xarit bi yaa ngi belli de <laughs> nuyu naa la ginnaaw maa ngi maa ngi sant bu baax ah, tey nag sa xarit moo xew euh, nekk lépp ci yow euh, nekk sa complice euh, ngeen bokk li ngeen di def macha allah euh, ku la xam-xam ko xam leen yéen ñaar macha allah tey heureux ménage jub tey boo doon wax seen diggante ak bi nga yëgee nouvelle bi <laughs> nan la la def. <laughs> nekk kontaan rek fi ko yëgee wax dëgg yàlla bi ma wooyee dama mel ni man la ñuy takk ndax dama kontaan waaw mu nu mel dafa mel ni léegi sama grande sœur la parce que ni mu loon ku baax. sama lépp la daal mu ngi mel ni xamante wuñ sa tournage te yàgg mu ngi xamante yaa même pas deux ans xamante te macha allah rafet bu bëgg a dee def. wa tey doon wax sagar kan su ma nee sagar moom day doon benn seytaane bàyyi ma ne bintu. waaw ah, bintu dama ne bintu. <laughs> bintu moom dëgg ku baax la ku mën a taxawu nit ku mën a sonn si nit. nii rek boo amee problème day mel moom moo am problème bi ci dem ba jeex. mu doon nit ku jafe te ànd jigéen dafa metti te ba tey dara ñaawul macha allah dama koy ñaanal rek sëy mi barkeel incha allah waaw. Fanta kontaan nga de yaa ngi ree rek. barke yàlla waa kontaan. mais <laughs> Fanta looy xaar. yàlla laay xaar. jongoma baa ngi fi belli baa ngi fi lan la. rek laay xaar. yàlla ngay xaar. waaw ki a taxi daw si ki nga nekkal ne woo ko. Eh, ma ne yàlla laay xaar doo ma wax loolu. amoo ko nekkal ni fan. ma ne yàlla laay xaar. Ah. waaw li woote. woote yàlla laay xaar yàlla ku ma rek ma jël. Ah. waaw. saam woo ku ñëw rek pare. rek na doon lu gën ci man rek. loolu laa bëgg a wax. ku génn fi fan. fii de Alpha Gueye bi nekk galerie moo ma defal lii bis bi nag Modou Awa borom Touba Sandaga. bopp bi nag ah bopp bi sama benn copine la Mbaaco moo ma defal nii moo ma belli. sant <laughs> belli nga def Fanta xam <laughs> maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. merci beaucoup Fatou. yaa eh, eh. kay kontaan kontaan. <laughs> yaay booy waxal lu la neex tey sa dooma aye tey foog sayri sa ngoone maama mutu fay sa ngoone sa tuggaayal bi moo xewle bintu lañu lañu ko woowe yaayam bor fa yaayam ay daa yaa mu ngi daaru salaam xew bi day neex day riis day am personnalité borom xew borom bi moo mel noonu mm-hmm. ak la nga nekk uh, magu yaayam xama rakku yaayam yaay rakku yaayam uh, tey boo doon wax sagar ban doom la doom ju baax doom ju bëgg ay waajuram doom ju bëgg yaayam ma du fonk yaayam lu mu am yaayam lu mu am ay magam ak ay ak yaayam la ko bokkal li mu bëgg ci aar bi moo ko xam yàlla na ko yàlla defal barke sëñ Fall néegu sëy yombul muy dugg ci néegu sëy doom mu sëy rek nàmp sëy sëy rek la doom yaayam sëy ba ngeer ay tantam sëy lañ xam ay magam sëy lañ xam kon bu ko yàlla dugalee ci néegu sëy day sëy ndax sëy rek la xam moom la doon buñ ne doon ngeen day nga met sa ndey a baaxu yaayam dafa sëyal baayam sëy bu rafet dem ñibbi Daaru Salaam mu toog nag di sëy ak bàmmeel bëggatu kenn ku dul baayam kon bu doonee loolu sëy rek lay def te yàlla tax yal na ko ci yàlla may sëñ Fallou ak ne ak maam Diarra loolu rek laa ko lay jaajëfal wallaay ndeysaan waa suñu mag ji nuyu naa la waaw soxna si ñu ngi leen di fay. gis naa kontaan ak mbégte bi. waaw loolu am na moom ndax ki kii moome. Uh-huh. dañ ko jaral suñu rakk la suñu yaayee bokk benn ndey. waaw nag ñu bokk te te te bañantewuñu uh-huh. kon nag bu amee bis. dinañ boole lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ñoo toogal ko. xaar ay xaritam ñu ñëw ànd defante lu baax ndax àdduna mu solo lii rek lañ di doon xaar lii dong lañ ko doon xaaral nit amul lu dul bésam nag yal na commencé ci bisimilah eggale ci alhamdulilah te yëpp ñëpp ñëpp ñëpp yàlla bu leen rëccu leen fi indi woon ñu nit bu ñuy ñibbi yàlla buñ fi am leen lu ñu naqari sagar rakk ju baax ju bëgg ay magam bëgg ay mbokkam mën a def lu baax waaw di ko ñaanal rek li mu bëgg ci sëyam bi yal na ko yàlla defal ak képp ku ko koy yéene di daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa kay kontaan nañ maa ngi lay ah fay bu baax doom sagar ñoo man ak yaay ñoo bokk ndey baay man maa topp ci yaay mu fonk ñoo fonk ñu lool bëgg ñu ñu doon ko ñaanal bésu tey bii yàlla na ko ci yàlla defal jàmm mu yeggaleeg sagoom yàlla may ko ci nag njaboot gu barkeel ci barkeelante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ lool merci beaucoup. Mm, tey ban conseil nga koy jox muy dugg ci li nga xamante ne mooy néegu sëy euh, mu nekk artiste te néegu sëy yombul tey moo man conseil boo koy jox ci néegu sëyam lan lay doon. waaw waaw euh, bi conseil bi ma koy jox rek mooy ni yaayam ay ni ay yaayam sëye mu sëyee ko toog su mettee du daw su neexee du daw ñu toog sëy rek te yàlla tax loolu laa koy conseillé ndax ay yaayam danoo sëy ba dee ndax loolu la ñu xam ñun suñu famille wax dëgg yàlla lool lañ xam waaw sëy rek la ñu xam waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura nag ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kontaan nañ ñoo la gën a kontaan am na solo merci beaucoup jërëjëf